ñu euh, dem ci li nga xam ne moom mooy euh, journal bi li mu bind xam naa moo nañu ko officiel Walf Quotidien dafa affiché quatre personnes yoo xam ni daal la ñuy wax ni ñoom ñooy candidat wu Pastef maanaam daal bu dul Sonko am nañu Cheikh Tidiane Dieye am nañu Diomaye am nañu Habib Sy waaw lii la xëy titré muy Walf Quotidien ñii daal ne mooy candidat Pastef waaw Walf Quotidien de man sama dégg-dégg. waaw génn nañ waa Pastef si langue gi. Hmm. sama dégg-dégg. ci naka. maanaam ay euh, Ousmane Sonko du doon candidat. Hmm. Basirou du doon candidat keneen sax du doon kandidaa ñu ngi ñu joxoñ ki nga xam ne mooy Habib Sy. foo tey ne duñ ko doon. ñooñu ko wax. ci naka. buñ nee bu doon Sonko kii lay doon bu doonul kii kii lay doon. loolu moo fi wër tam. wal fu côté dañoo waroon def Ousmane Sonko daj ni kii mooy candidat bu Pastef dara mënu koo te bokk point. mais parti day am plan B. non non non non non parti moom boo gis ma ma plan bii mooy sama plan B rek mooy pexe jeex na. ok kon Ousmane Sonko ak waa parti Pastef lii journal bi bind journal bi moom génn na leen si géej bi moom Habib Sy lañ ñu joxoñ te Habib Sy moom wax dëgg yàlla nii ma ko gisee nii bu ñu àndee ak moom it mooy président Macky Sall mburu foofu ko fariñ moom sax moo jàngal président Macky Sall politique ma damay wax rek. xam nga ñun dañ dañoo bëgg lu bees. waaw bu fekkee dëgg tax ñuy wax. Habib Sy ñi ànd bëgg lu bees. ay àndal. Habib Sy moom moo fi nekk naan bëgg lu bees bu fekkee dañuy waxante dëgg te yàlla tax. waaw mais Habib ñu bëgg indi lu bees ñoom la àndal. waaw xam nga man damay wax te yàlla tax. waaw bu fekkee ku fi wax te yàlla dañuy wax yàlla tax Habib Sy mii buñ ko naree woteel ñu bàyyi président Macky mu def troisième mandat moo ko gën ah waaw ndax président Macky Sall Habib yee ko mag te ñun dañoo bëgg lu bees tàq ku mësta gouverner. Sénégal am na problème ak mag de. nga ni am na problème ak mag kay li ñu daal yëpp mag ñee ñu ko teg nga naa ma lan gouvernement bi mag ñee koy doxal système bi wax. Hmm. système bi système bi kan moo mën a wax si bi te mënoo jiital Habib Sy. Cheikh hmm. Tidiane mais kii nii si des ko si boole nii pour rafetal kii bi mais Habib ñu ñu joxoon duñ ko wateel. dañ wax ni Ousmane Sonko mooy candidat bi man naa wax man maa damay wax. bu buñ ko wateel. waaw waaye man mën na maa wax ni nit bu leen ko wateel. yow waaw loo jublu ci loolu xanaa doo ab muy ab bëgg lu bees chroniqueur war naa wax loolu bu ko woteel waaw damaa bëgg lu bees Habib Sy lépp lu ko waraloog Sénégal def na ko dañ koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér te doon ab conseil comme ni ko Moustapha Niass doone na doon ab conseil réew mi Habib Sy mënatu koo jiite lépp lu ko war waraloog Sénégal def na ko ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te wér nag du doon président bu Sénégal pareewuma pour mu doon ko ah te yaay décidé bokk si <laughs> <laughs> ah Assane bi de jaaxal nga meilleur chroniqueur yow Assane Habib Sy mi ngi ànd ak gars yi nga xam ne. waaw ànd moom ànd moom du leen ànd moom. te ba affaire tasee ba léegi saa yoo gestoo ci njabootu Ousmane Sonko gis ko ci seen wet. Hmm, keroog bi gisuma ko. peut-être dafay nekkul mais Habib Sy moom mi ngi seen wet. Hmm, Habib Sy mi ngi si wetu ñëpp mi ngi si wetu ñëpp ni muy ni muy conseil président ni muy conseil Ousmane Sonko noonu lay conseil président Macky Sall. mi ngi si ah wetu waaw. mooy conseil Macky Sall day conseil ñëpp. Ah ñëpp lay conseil waaw. fi teel laay wax di. Ah, kon kay baax na Habib Sy moom lu baax dong ko ñor ñoom ñëpp lay conseil. mi ngi noonu Alaaji. waaw Habib Sy euh, euh, ak ki nga xam ne mooy Cheikh Tidiane Dièye ak euh, Ousmane Sonko ak Diomaye daal Walf Grand Place xëy daj ci seen journal daal nit ñi ñooy candidat yi Pastef. Walf Grand Place. Mm. waaw xam nga. loolu ñu. non Walf Grand Place wala Walf Quotidien Walf Quotidien maa ngi jégalu. waaw loolu nga xamante ne bii. moom lañu bind moom xam nga journal yi tamit ay asan da ngay xam ni dafa am aspect commercial maanaam bu ñu xëyee eh, dañuy tiitre ngir tamit wut xaalis wut xaalis boobu nag baax na ci lekk léeg ñu créer ay polémique maanaam créer ay mbir yoo xam ni mooy indi jiixi jaax yi nga xam ni moom ki am na loo koo xam ni loolooy tax mu daadee dem jënd ju journal bi parce que journal yi tamit dañoo war di jaay di fayu moo tax bu ñuy bind noonu lañuy bindee léeg-léeg nga gis ba ci site internet yeeg kii yeeg yëpp ñu def ay tiitre titre yoo xamante ni bi du ngëm-ngëm mais jaay la eh, da koy dugal rek ci ne lenn la pour jaay mhm. li nga xamante ni bi mooy mooy mbir ah kañ jaay mhm. kiy jaay moom day jaay la marchandise day xool li jar ci marché bi mhm. mu fexe nu mu ciy waxee li jar ci marché bi nag mooy ngay dugal chaque jour jiixi jaaxa Ousmane Sonko dana wala du. wala du diggante dana ak du. Hmm. loolooy tax nit ki di fecc. waaye ginnaaw dugal li ñu war dugal lépp kay nañ wax dana rek. ah waaw mais c'est loolu yëpp mbirum mbir jaay tamit aussi tamit daf ci nekk aspect commercial da ci nekk. Hmm. Hmm. xam nga tey bu ñu la waa Pastef de nee nañ. ñii ñooy seen kii bu boobaa nga xam ne parti baa ko wax. bu boobaa nga ne nag waa Pastef ñoom génn nañ ci seen bopp. waaye fi mu toll nii journal génne ci Ousmane Sonko. wala keneen génne ci Ousmane Sonko moom taxut mu génn ci Ousmane Sonko moom kenn koy génne ci mbir mi. kenn la tudd muy conseil constitutionnel moo ko ci mën a dugal moo ko ci mën a génne. waaw dëgg la te la nga xam ni moom lay laaj yóbbul na ko ko. Mm-hmm. la nga xam ni moom lañ ne manqué na la tax mu manqué constaté nañ ko issué. Mm-hmm. yóbbu nañ ko. boole kook seeni décision de justice. Mm-hmm. kon kooku moom moo mën a wax ne kii génn na. wala kii dugg na. waaye du keneen koo xam ne kii mën naa génne wala dugal. léegi nag nit ki moom bu dee day jaay wala muy business. Euh, bàyyil tamit nit ñi tamit jéem a xool ku ci nekk ni muy tojee bopp dina xam yaa ngi dégg waaw da ngay xool nit ñi nit ki xool ni nga xam ne moom la ñuy tojee bopp dina xam mm-hmm. am solo ba am solo mooy yëf yi moom foofu ñuy li ñuy wax noonu yëpp moom soñ bu mm. euh, mbir mi moom du yegg foofu man moom gëm naa ni mm. conseil constitutionnel bu génnee Ousmane Sonko. Hmm. gëm naa ni moom loolu moom yaakaaruma benn yoon ni dana ko def. Hmm. waaw parce que parce que bu boobaa du son Sonko la génne mais moom boppam la génne ci ay élection élection yuy amati ëllëg. Hmm. sañ-sañ ba mu amoon. maanaam dafay rocc ci sañ-sañam maanaam dootul amati sañ-sañ. waaw. ndax nag moom pare na pour la mu waroon a liggéey. nangu ñeneen di ko ko liggéeyal wala déedéet parce que mbir mi du rocc Ousmane Sonko mooy rocc ci ñoom seen ab sañ-sañ maanaam li ñu leen dénkoon. maanaam léegi nekkatul ci ñoom. loolu la ñuy rocc. d'accord waaw bu boobaa nag ëllëg si biir léegi mooy DG mooy lijjanti wala euh, ñële rek ñooy lijjanti mbir yi mais conseil constitutionnel moom kon day pare ci mbir moom. Mhm. kon dootul amati màqaama waaw parce que la tax loolu amut du ci ki ngi ñëw joxe ay dossier mhm. du ci kooku waaw parce que ki joxe ay dossier moom amoon na lépp ngir war a am dossier te def na lépp ngir war koo jot waaw kooku moom boo ko seppee rek kon yow du moom nga seppi mais yow yaa seppi sa loxo ci dab li ne lekkatuma mhm. waaw <laughs> loolu la daal